numérique nous mën utiliser ci pour que nous développer notre territoire nous loolu lu am parce que xam ngeen ne ne atteindre en français l'électronisme mooy koo ne utiliser ordinateur utiliser le numérique pour que loolu am parce que ñun gëm nañ que l'émergence du Sénégal pour que mu mun a am territoire yi ñoo war a émerger loolu mooy vision du président de la République nous na dafa bëgg partout si Sénégal ñu am ay territoire yoo xam ne Nous, ñooy initier son projet nous dinañ am acteurs qui xam ne dañ leen di former loolu nag pour que mu mun am il ne faut pas que nous aussi ñu am retard si addina bi mooy que mënatuñu def dara léegi si biir addina bi fekk numérique en musique loolu moo tax ñu war a féliciter ADL le fait que ñu xalaat ne que mënuñu def leneen euh, tant que commencé wuñu bi ñu fi ñëwee ba léegi le DG mu ngi doon xalaat nan la ñu war pour que numérique bi mun accompagner en tout cas les collectivités territoriales. mais accompagnement boobu nag si wàllu numérique dina tax ne que acteurs yi ñoom si seen bopp ñu mun a am xaral yu bees c'est-à-dire que ñu mun utiliser ordinateur le numérique nan la gérer seen communes yi.

pour que nous si gox goxaan yi ñu mën def ay projets par zone nous def faire des projets si biir Sénégal ñu am sax communication avec les collectivités qui xam ne nekkuñu sax si Sénégal donc mun naa wax en tout cas le fait que nous ñu organiser des fii si biir Dakar ñaari fan di waxtaan di waxtaan si la gouvernance di waxtaan c'est la formation di waxtaan pour servir nan gens, ñu war pour que commune boo mun tege si biir non seulement dina am ay infrastructure dina am ay outils dina am ay ordinateur mais que acteurs yi si seen bopp nan la ñu war a fexe pour ñu former leen si nan la ñu gérer seen commune nan la ñu exécuter seen budget seen budget nan la ñu war a fexe ba si biir commune bi ñu mun a installer à côté de l'école parce que xam ngeen na maire yi élus yi fa nekk ñoom am nañ si seen compétence transférée éducation ak santé donc war nañu fexe ba li ñu doon wax ne léegi électronisme bañ a amati si biir gox goxaan yi et loolu nag ñun am nañ si wàllu boo xam ne bu am solo ñun les collectivités territoriales war nañu taxaw utiliser numérique bi. maintenant ADL su paree li mu ngi liggéey si ay communes ay communes ñetti communes ñu demee ba pare ñu am ay recommandation dinañ ko jéem a utiliser au niveau national pour que collectivité boo gis mu am si biir collectivité bi am ay nit ñoo xam ne ñoom accompagnement si wàllu numérique rek la ñu war a def accompagner acteurs yi accompagner élus yi accompagner aussi ñan ñooy exécuter budget bi ñu war a utiliser donc ay documents yu wóor au niveau numérique donc digitalisation ak numérique lu am solo la pour suñu collectivité yi donc maa ngi féliciter en tout cas le directeur général koo xam ne bi mu fi ñëwee ba léegi mu ngi jéem a initier mu ñëw si ADL ba léegi di liggéey ak ñëpp di initier ay projets yu mel nii donc di ko encourager moom ak agent yi